lay xew ndakaaru bu dul jàmm est-ce que dañ ci mucc kon li nga xam ne moom la ñu war a jëkk jiital mooy sëriñ seeg catholique yeeg képp koo xam ne chef religieux nga li nga war a jëkk a tàllal ay loxo ñaan ndax élection yi di élection jàmm. yàlla na si yàlla def lu sut suñu njort incha allah. ku gañe ñu xam ne moom la yàlla jox euh, réew mi. mës naa voté waaw. ñaata yoon nga ko. benn daaw. ñun enfin gouvernement bi fi nekk ñun ñoo ko voté ñoo ko fal jox ko sunu carte en tant que jeune. mais li ñu séntoon si ñoom dara amu ci. mais xanaa ñu jëlaat sunu maam rek daal koy joxaat réew waaw ndax xam naa ne moo ko mën a yor. dëkk bi moom ñëpp ñoo ko bokk dañuy ñaan borom subhaanahu ñu jàmm defal ko mbooleem jullit lépp luñ ci séntu mu rafet yàlla si yàlla def lu sut suñuy njort. soxna si est-ce que yow si damay voté. noo ko gisee. Hmm. de def si jàmm. dèjà dëkk bi tàngam na ñu ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala doolu sutura bi rek ba lépp luñ ci yaakaar rek yàlla def si lu sut suñu njort. waaw ah, ni ma ko gisee ma def ko si jàmm ak salaam sa jàmm ci la lépp xaj waaw ku gañe ñoo xam ne moom la yàlla jox euh, réew mi. mës naa woote naa 2009 ak noxol 2000 naa 2000 ak 2000 bi 2007 waaw. élection yi di ñëw yow noo ko gisee. waaw que ça se passe dans la paix waaw surtout dans la tranquillité ci jam ak salam et que le meilleur gagnant loolu la. ah si man damay voter comme man euh, citoyen la sénégalais la droit la ci citoyen bi nga voté quoi. élection di dougou si muy élection présidentielle naka nga gisee élection yi. non man élection bi enfin num ko gisee moy nan ko déroulé si jam gën ci si alhamdoulillah rabil alamin puisque jàmm si la le a xaj quoi man nak ci côté yépp lay wax si opposition bi si tamit euh, nguur bi ñu. jàmm quoi parce que jàmm si la lépp a xaj jàmm bu amul rek kenn du nekk si jàmm quoi kon nanu ñaan jàmm quoi. boo doon voté sa candidat yan critère la war a am. man candidat yi moom critères yi mooy njëkk a soulevé mu am ñu soutenir famille yi sur si kaw les denrées de première nécessité ñu jàppale ci waajur yi d'abord jàmm lu mu gën a mën a am jeunesse jeunes yi aussi am liggéey. lool mom suma ko amone ci si ben candidat man xamna ni mom lay voter man idi la idi idi dama ma gis ci mom deggu dama gis ci mom deggu dama xam ne ne mom moom du mu ne mom moo meuna yor réew mi waaye man dal ci mom la am yakar mom la wote lon te mom lay wote lat bu soobee yalla bo don tan ci candidat sa candidat nan la wara mel. waaw ko xamni ku am talibé lay don, tay wax deug ba paré deug ci limi def def lu clair daal lu tegu daal waaw job town bi waaw. kan man waaw. ñu waa léegi 2012 ñëw ñu jëm ci élection présidentielle yow noo gisee élection yi. élection yi xanaa ñu jëlaat sun maam rek daal koy joxaat réew waaw ndax xam naa ne moo ko mën a yor. kese lu bomb mën a tàkk tàkkit lu bal tàkk tàkkit sun maam ay jëlaat réew mi rek lu mën a xew moo koy jëlaat Abdoulaye Wade rek waaw moom dong. tur bi Cheikh la Cheikh Cheikh Diop. élection yi ah luñ jot a wane am na violence quoi parce que taxna bu ku nek dotul am yaakaar ne moom dina wóolu ko xamné ne mun ko considérer comme njiit mais pourtant waru won demee nonu quoi parce que nous sommes tous des sénégalais si kaw loolu ño bokku dëkk bi peut-être dafa am lo xam dafa jitu Sénégal parce que euh, système gouvernemental bi xawna je ba tax citoyen bi mom du xam fu positionné wu mais nañ fàttaliku ñun ñun ay sénégalais lén té am ay valeurs yo